su fekkee ni président Macky dafay sax ci lii ci lii nii moo équipe am mooy que président bi mu ngi ñuy wax ñun ñëpp ne yéen ci dictature laa jëm ak yéen <laughs> sénégalais yëpp yéen ñëpp te xaalis dafa wax lu am solo képp ku toog sa kër jàpp ni. Hmm. sama yoon new ci bisa ngi ci bis yi Nicolae Ceausescu hmm. ak jabar ja Catherine la xaw dañoo nekk ay ati at Roumanie waa ji dem ba yëg ne buur la ci boppam moom faaleetul kenn xam na la mujjee nit ñi ba ñu sonnee dañoo daw attaqué ka hélicoptère moo ko jëlee pale ba dem xam nga lu hélicoptère ba def hélico ba bu mu ko jëlee xam lu mu def dafa dem wàcce ko ci benn àll moo équipe bu garde corps am ñooñu ut benn oto dugg ca ànd ak Ceausescu ñu ne waat ko nii ma dama xamul président président foog ñu wax ak yow billaahi wallaahi tallaahi foog ñu wax ak yow justice sénégalaise bii su bàyyiwul Pape Alé c'est parce que monsieur le président vous le voulez eh, du procureur du keneen ak keneen bu ñu bàyyiwul Pape Alé c'est parce que quelqu'un a dit non pourquoi rencontre société civile ak premier ministre boobu nga xam ne bokk na ci say point pourquoi démb mu metti parce que tout le monde se soumet le gouvernement se soumet au vœu du président toute la société est semble-t-il soumise face à de l'incongruité nu kaa waxtaane gauche droite man may taxaw ak agent de police nii mu xool ma ne ma on en a président loolu il faut nga dégg ko te xam naa dégg nga ko on en a dañu sonn mais xam nga ñun mënuñu wax du benn du ñaar du ñett ak yeneen ak yeneen yéen kilifa diine yi fi nekk ñenn ñi yàlla may leen maqaama ngeen yore kurus kurus gi na dem ci lu baax. xam nga dem ci lu baax parce que kurus mën na lu ne mais na dem ci fi mu war a dem kurus ñuy des population bi ñuy toog bu ñu bougé kurus googu baaxut yal na yàlla muccal Sénégal ba ñu bañ a dugg ci guut ak dictature Sénégal jaam du amu fi mbir mbirab jaam la ñuy dugal mooy li xaali wax nit ku nekk si diggante dund ak dee yow ngay gérer naan et puis mais c'est incompréhensible parce que tey ñu ngi jàpp naan Pape Alé bu mu xaru c'est vrai que entendement bi loolu la mais au-delà y a quelqu'un qui le pousse à se suicider bu dee xaru la quelqu'un qui veut saa kon kon li ñiy def lii bu ñu sañoon moom dafay nekkati mais boobu ngeen juumee boobu ngeen juumee président mm. fii la baax la jekk rek ngeen fi mën a doxal mais pour imposer wu forcé nit ñi rencontre société civile premier ministre ngeen waxtaan ba jeexal waxtaan tënk ci lépp sauf le troisième mandat pourquoi dama koy def par force ok bu boroom xam-xam yi jëlee seen course dës population bi ñu toog bu ñu bougé parce que lan dañuy jot xaalis dañu ko wax te yàlla tax dañuy wax sàmm mën ngeen ma may ma mën mën ngeen ma may ma wax. mën naa ne. Mhm. ak yëg ak fonk bi ma leen yëg. Mhm. ma yi mën naa ne de. Mhm. dama ne koor ñun ñëpp ñu ngi toog la si waa léegi ñun ñëpp ñu ngi toog. ngaa la émission bi su jeexee man war naa mën damaa war a jël pancarte dem taxaw place l'Indépendance libérer Pape Alé Niang am naa ci droit après beneen sénégalais ni man boo xam ni. dañu kaa defloo bon attention li maa wax nii rek nii nii nii nii jël nañ les devant téléphone bi la ñuy jël bon il faut il faut ce truc là kaka nar a arrêté yàlla boo agsi mhm. bu ñu jaaxlee sunu boroom lañuy ñuy waxal ka nar def lu bon ci réew mi yàlla boo ko nettali mhm. ka nar a imposer Sénégal dictature di faat nit ñi mel ni imin ak imin imin imin imin nu mu amin idi dadaa ca Uganda ak ñeneen ak ñeneen kaka fi nara def yàlla boo ko fekkee yàlla boo ko nettali yéen da ngeen foog ni ñun dañoo war a toog nii ñu jàppee ñu ay jaam ñun ñëpp ñu toog ñun ñu toog benn bu ñu paree ci Pape Alé dem ci keneen bu ñu paree ci keneen dem ci keneen ñuy taxaw di imposer wu mais du fi am président amul bu la kenn assuré loolu du ay sécurité française du du ay nit yoo xam ne dañu yor doole nga jàpp ni ñooñu la ñooñu yàlla na leen yàlla faagaagal ba duñ fi mën dara amiin yaa rabbal aalamiin amiin la noo waxee la dal bàyyi aale journaliste yëpp wax nañ ko monsieur le président vous serez pris pour responsable te loolu dëgg la yow ak sa équipe yëpp la fi dal bàyyi aale vous serez pris pour responsable devant le monde entier mais bi ñu tollee ci diggante diggante ab Ablaye Wade mais président Macky Sall yow mi yaa bind Nations Unies. waaw léegi Sénégal ñun dañoo war a toog ne non non non loolu amoon yëpp wuy mais bon bi parce que lan ku si nekk am na benn million booy jot wala benn deux million wala trois millions wala quatre millions wala cinq millions wala yaa ngi am ay marché c'est lâche ce qui se passe dans ce pays là c'est immonde c'est un capharnaüm capharnaüm inimaginable ci 2023 président libéré leen kii bala dara di ko dal ci seen loxo yi vous aurez des mais super souillées te dina metti si yéen du ay menaces bu ñuy wax ñu naan menace ak ton booy wax ak ñoom sax ñu naan la way il faut respecter ce complexe la terrible yàlla defal na leen teraanga boo xam ni xalaatu leen koon ci seen àdduna maintenant vous voulez massacrer les populations 17 million de Sénégalais vous les en souffrance comme ça et ça ne s'arrête pas pourquoi. vous forcez à gagner en 2019 vous vous rendez compte du constat c'est quoi mooy que vous êtes en train de perdre ça bat de l'aile de partout vous perdez nga ne non du fi am damay imposé wu damay toog damay gagner ku fi war a wax kii kii waaye kutt loolu laa wax on aura beau respecter fonk joxe cër mais kamu joxul cër du la jox cër nag Mamy kanu joxul cër duñ la jox cër jëlal lay dëgg euh, jërëjëf Seck da nga ci wax lu nit mënut a mënut dindi et damay gëstu je vois Nabokor en pleurs je comprends très bien état bi mu war a nekk te xam naa ne bëri na ñu ñuy seetaan ñi nga xam ne bi ñu déggooyee kàddu xaali ñoom itam seen rongoñ daanu na ci seen dënn mais gis nga euh, Pa Assane gis nga réew mii buñ dul waxante dëgg kon na ku nekk xëy toog sa kër ndax Pa Assane li nga fi wax léegi xaali wax ko fi nit munu cee teggi yow taa xanaa kay damay bëgg di delluwaat rek di ñaan ci sunu kilifa diine yooyu nga doon wax